alors maa ngi lay maa ngi lay gërëm di la sant bu baax euh, di remercier euh, presse bi déplacé wu ñëw ci bisu tey bii nga xam ne mooy bis bu mujj ci at mi di doon it discoursu Macky sàll bi mujj ci statut njiitu réew discours bi nag discoursu politique la discoursu politicien la laa ko mën a waxee Euh, wax na fi aspect yu bari mais li ma jàpp rek mooy euh, Macky Sall wax na lépp waaye dafa fàtte wax ne euh, sénégalais yi sénégalais bi ci suuf góor góorlu bi ci suuf kiy taaba taaba ngir jox njabootam lu mu dunde ñooñu la Macky Sall fàtte te ñooñu ñoo ëpp ci réew mi li mu fi lim lépp ba ci wàllu santé wax na def nañu hôpitaux yi def nañu nangam def nañu nangam mais fàtte na ni am na ay villages yoo xam ne ay jigéen pour ñu mucc dañ leen di teg ci saret ñu daw ay kilomètres bu ñu demee fa ñuy dem du ñu sax am infirmière mais matron moo fay nekk walla bàjjanu gox mooy nekk foofu pour rawle réewle leen donc ma jàpp ne li ñu ko jox ci ay milliards mu toll daanaka ci juróom fukki junniy milliards ci fukki at ak ñaar yi mu fi def la liggéeyal senegale yi boo ko nattee ñàkkum liggéey gi dafa gën a yokk li nit ñi mënoon daaw ren mënatuñu ko jaaxle gi ci njaboot gi dafa gën a yokk kon bilan bi muy wax li ñuy wax bilan immatériel tabax naa tabax naa tabax naa dégg nga loolu rek lay wax tabax naa defar naa mais waxul mukk ne def naa ci seen poos nangam alors que sénégalais bi li muy xaar mooy ku def ci poosam def ci poos bi du jël xaalis dugal ci poosam déedéet waaye teg ko ci environnement boo xam ne dana mën a liggéey ba li muy liggéey mu jariñ ko Sénégal rek ngay gis nit di liggéey di torox nit di ñaq di walaakaan yéene boobu nit ñi amoon yaakaar ci moom ne dina ko dindi non ci biir discours bi kenn gisu ko ci rawatina nag pauvreté dégg nga nee na jëlee na bourse familiale ci juróomi junni yóbbu ko ci juróom-ñaari junni mais li mu waxul te xam na ne fa lañ koy xaar mooy ne lim bi wàññikuwul waaye lim bi daa gën a yokk kon bu fekkee ne dangay joxe ndimbal ngir xeex ñàkk te lim ga nga amoon nga yokk ko mooy ne ñàkk nga nga doon xeex daa gën a yokk c'est un aveu d'échec et li lay firndeel loolu mooy boo fàttalikoo Covid bi mu fi amee ñaata kit la ñu wax ne moom la ñu jox joxe ñaata kit alimentaire la joxe un million cent demal xool ci rapport force Covid bi un million cent est-ce que yow da nga am kit dañ la jox kit yow joxuñu la kit ñi taxaw fii ñaata lañ ci jox kit mais boo joxee un million de kits sachant que kër gu nekk gën caa néew fukki nit ñu ngi fa yeewoo mais ça veut dire que tu dix millions de pauvres au Sénégal mais dix million de Sénégalais qui son dans une extrême pauvreté waaw léegi loolu boo ko jëlee ci dix huit million yi ñu doon motul soixante pour cent donc am na ci loo xam ne Macky waxu ko et loolu mooy li muy bañ a wax mais loolu mu bañ a wax ñun danañ ko ko waxal. parce que ci fukki at ak ñaar yi mu fi def jox nañ ko juróom fukki milliards waaye bàyyi na fi bàyyi na fi fukki junni fukki junneeg ñeent ci ay milliards ci bor maanaam yow sa doom bii juddu deux mille vingt cinq deux mille vingt six ba deux mille dana fay bor yu fi Macky Sall bàyyi kon lépp tabax du xam-xam. parce que signature président mun na la permettre nga leb ay milliards yu bari donc leb tabax loolu du du du du xam-xam mais li am solo mooy li ngay leb na ko def fu fuy njur njariñ walla nga def lu ñuy wax lu lu efficient mooy fexe de defal ñu li ñu soxla te doo ko wéer ci loo leb je donne un exemple l'aéroport de Diass bien que man jàpp naa ne du woon utilité mais aéroport Diass ni ñu ko tëggee ni ñu ko muulee ci wutum xaalis bi li ñuy wax ingénierie bi dañ ko teg mais teguñu ko woon ci lebi xaalis li ci ëpp suñu xaalis la te dañ ko wéeroon ci billet d'avion yi ñu doon jaay maanaam billet d'avion bu ñu jaay ñu teg ci ñaar fukki junni mooy cent mille francs loolu lañu ñu pour defar aéroport bu jas c'est-à-dire loolu la ñuy wax ingénierie financière alors que àdduna foofu la toll donc tollootul ci di leb di tabax tey jii li ñu ñu jox ci ay auto autopont xoolal autopont yi nekk Ndakaaru dafa régler problème embouteillage wala dafa yokk embouteillage ku nekk ñun mën na ci joxee réponse boo xam ne tout de suite kenn ku nekk xam nga li mu li mu fi def autopont bu nekk nee nañ def nañ ci treize milliards mais 13 milliards yooyu ci croissance bi muy wax ne croissance bi dem na 9 pour cent mais 13 milliards yooyu mu joxe autopont bi daf ko jox société wu société wu tubaab bu tudd Matière SA Matière SA jël marché bi jox ko société bu chinois ñooñu ñëw jël ay sénégalais di leen ko liggéeyloo fu njariñ li nekk. mais rek la na embouteillage bi selon yow. boo ñëwee kër góor gi di nga xam ndax rek la na embouteillage ñun kër góor gi daawul am problème ci rond point bi mais tey jii la waalo gën a ay demal ci yeneen i gox nga xool ndaxam réglé na seeni problème wala réglé ko en fait pour man wax ji du réglé na ko wala réglé wu ko wax ji mooy xaalis boobu est-ce que yow mii sénégalais dugg si na ci sa poche jëriñ na la wala jariñu la en 2007 bi ñuy def aussi première tranche autoroute bi ñan ñoo ko defar. du société sénégalaise corniche bi sénégalais yi ci souscrire mais dañ leen ci génne jox ko ay tubaab yeneen ci ay infrastructure fii ci Sénégal ñan ñoo ko defar du ay sénégalais nga dem ba deux mille vingt deux ngay tabax ay infrastructure di wuti ay tubaab tubaab yooyu di wuti ay chinois di ko sous-traité léegi ñun lan lañ ci am ñun sénégalais yi dara. et loolu moo lay wane suñu secteur privé nërmeelu na alors que secteur privé mooy doxal réew réew état du ko doxal réew état da koy organiser état dafay veiller ci loi yeeg règlement yi ñu respecté ko mais liy doxal réew dëgg secteur privé la secteur privé boobu lañu ñu ñàkkal fayda moom la gouvernement bu Macky Sall la ñàkkal fayda moo tax bi nga ko déggee muy wax waxul dara jëme ci dóorkatuwaar yi waxul dara jëme ci menuisier yi nga xam ne liggéeyatuñu waxul dara jëme ci ñiy defar dàll cordonnier yi parce que ñooñu liggéeyatuñu waxul dara jëme ci ñi nga xam ne dañuy yar ay ginaar waxul dara jëme ci ñi nga xam ne dañuy bay sa que du bay mooy joxe xaalis soppar ñi ga la transformation loolu moom mooy joxe xaalis alors donc il bokk a beaucoup de choses yoo xam ne wax na ci mais waxi politicien la rek day raay ne la wuy def naa nangam def naa nangam mais man li ma ci gën a retenir mooy nee na day bàyyi bàyyi na bu bàyyee moom Macky Sall nee na day créer benn fondation boo xam ne day dox ci jàmm incha allah le avril bu ñu defee passation de service bu ñu paree dinaa ko jox marché bu njëkk et marché boobu du dara lu muy jubale sénégalais yi ci seen biir comme ci jàmm lay dox na fexe jubale sénégalais yi mu féewale ba noppi. waaw élection yi dina libre dina transparente mais dafa am wax ju am solo ju mu fàtte mooy na ñëpp bokk bu fexe woon ba ñëpp bokk way wi gën a rafet parce que loolu mooy charme démocratie ku bëgg ñëw ñëwal jàkk jaa ngi nii ku war a nodd ñëwal nodd mais buñ ci boolee ay ndëgg sarax ay euh, sélection rocci ñi am kumba am ndey kumba amut ndey jël ay nit dóor leen jël ay nit def leen ci kaso bi te sénégalais yépp xam nañ ni ñii nga dugal ci kaso bi dara taxul nga dugal leen parce que ragal leen te bëgguloo ñu bokk dong la nga teg nag sa administration et je crois que c'est ça dans le livre Tekki j'en parle je di administration Sénégal dañ ko war a delloo mission première mooy fexe ba nekk au service exclusif des Sénégalais ba képp koo xam ne soxla na administration administration mën a taxaw parce que man jàpp naa ne administration bi ñu am dootul administration bu tëddee njaaxaanaay administration lañu boo xam ne dañuy politique et moo tax ci biir programme Tekki dañ ne bépp au cadre de l'administration nu la aaye nga def politique comme ni ñu ko waxee ne magistrat dootul def politique parce que jàpp nañ ne Sénégal bu ñu ko bëggee tabax il faut ñu am ay mesures rigoureuses yoo xam ne dañu koy jëf jëfe ko te duñu ko teg ci par parparloo parce que nag loolu moo mën a avancer réew loolu moo mën a tax réew dem ci fa ñu bëgg ak nañu ko bëgg waaw parce que si ñu war a càmbar seen dossier de candidat yooyu moo ko gisee. 84e place. Euh, bon xam pour man euh, waxi yu ñuy euh, divertir la rek. xam nga ba ñu tàmbalee dañ ne woon 300 personnes dem nañu jëli clé yi après tey ñu ne la wuy 93 déposé nañu au finish ngay gis ñu naan la wàññiku nañu wàññiku nañu wàññiku nañu donc li am solo mooy ñan ñoo war a compétir loolu rek moom moo am solo mais xam nga tey sénégalais bu bu nekk ci réew mi xam nga ne gëm sa bopp def na li mu war a def ci parenage yaa fu suñu ci liggéey nañu li ñu war a def lépp jox nañ ko xam ba mu mat sëkk nekk 84e nekk 200e ala kulli àll li am solo. mooy ndax la nga joxe wóolu nga ko te ñun li ñu joxe wóolu nañu ko nee naa la ñun bokkuñu ci mbappat gi bokkuñu ci parenage yu ndey dikki yi mooy li xew Dakar li xew cees li xew Diourbel li xew Kaolack ñun joxewuñu région yooyu li gën a néew ci parrain la ñu fa joxe suñu focus ñun dañ ko def ci région yi nga xam ne dafa nekk à mais région yooyu nekk à l'intérieur it ñëwuñu ci chef lieu yi di fa xëccoo déedéet ñun dañu dem ci gox goxaan yi ci commune rurale yi ci village yi fa la ñu dem jël ay parrain ñëw indi ko te lu tax pare yu gëm sa bopp metti woon parce que ñun képp ku ñu parrainé dañ la doon laaj sa copie d'identité suñu responsable yi nga xam ne dañu leen jëloon dugal leen ci biir dëkk bi dañ leen jox deux cent cinquante photocopieuses ne leen fu ngeen dem bu leen nit ñi ne laaj leen copie pièce d'identité ngeen indi ko pour que ñu mën koo denc denc rënk ko ngir la ñu daloon ci yeneen parrainage yi mu bañ ñoo pour pourquoi parce que bu ñu ñëwoon ne la wuy diw mii du électeur amuloo foo ko doon vérifier amuloo it foo ko doon contester xëy na da nga doon xool de manière aléatoire ñi nga amoon seen i pièces nga teg ko ci table ji mais xam nga laa tey ñun les cinquante huit mille neuf cent 75 yi ñu déposé conseil constitutionnel copie carte d'identité boo ñu ci laaj ñu génneel la ko ci saa si jox la ko parce que mu ngi ak ñun donc c'est un boo xam ne def nañu ko dem fépp ci Sénégal liggéey liggéey bu am solo donc yaakaar naa ne 84e ou 200e place man nee naa la man wax waxuma sax nekk di wax waxi parrainage parce que jàpp naa ne stade stade boobu mu ngi sama ginnaaw. man fi may xalaat mooy naka lay campagne ñi ma joxagul bopp naka lay fexe ba ñu ñëw ànd ak man ngir la 2 avril ma mën a wutu président Macky Sall et jële fi Benno Bokk Yaakaar loolu rek mooy suma suma yitte beneen bi ci des it am na sànq ku ma ne oui mais bu fekkee ne génn nga parrainage parrainage génne nañ la nee naa la man awma logiciel lu politicien yi man Sénégal moo ma ñor ma am parrainage dinaa campagne pour jële fi Benno Bokk Yaakaar ma ñàkk am parrainage lu ma waroon def benn danaa ko gën a dolli pour ñu gën fee jóge euh, ñu gis ne président si ñu tijjee discours am mooy violence yi nga xamante ne ni moom lañ fi nemmeeku ci atum 2023 bi ay nit yu bëri ñàkk ci seen bakkan ñi yoon teg leen loxo ñu jot see yàq lu mel ni ay université ay école mu mel ni li ko ñor la ndax moom la ñu wax léegi moom la tijjee discours am mm-hmm. est-ce yow loolu d'accord mais euh, loolu loxoom ma nga ja ñi fi faatu mais moom Macky Sall loxoom génnu ca parce que euh, ku ku seen nen ne nen a ngi li fi indi nit ñi xeex ñi ñu fi rey da nga dégg justice ubbi ci benn enquête dé gis nga ko ñaata nit la ñu fi rey 2021 ak léegi ñaata nit a fi dee matul juróom-benn fukk wala juróom-ñaar fukk est-ce que da gis benn enquête bu ci yoon jóg teg ci taabal ji ne na leer déedéet ñan ñooy perte sénégalais bi ñu dóor balu fetal sénégalais boobu ñu dóor balu fetal muy yow muy keneen ak keneen ak keneen ñi toog fii gis ngeen ay nit ñu ñu jël jox leen ay ngànnaay ñuy yor ay pick-up di jóge ci benn bërëb ku nekk teg ci bëtam te ba sànq ba tey kenn leeralu ko kon li rey sénégalais yooyu li faat sénégalais yooyu justice dafa am obligation leeral ko. nee la justice suit la justice. suit son bu fekkee ne yow gis nga justice buy def liggéeyam ci wàllu woow xanaa nga leeral Sénégalais yi man de gisuma ko xëy na bu ko ñeneen ñi gisee yëpp ñu wax ma mais man ba fi may wax ak yow nii gisuma benn enquête boo xam ne teg nañu ko ci taabal ji déroulé ko pour que ñooñu seen bakkan rab mu leer donc Macky sàll euh, acte yu mu posé. ci gouvernance a nërmel justice fexe ba nit ñi nekk ci dëkk bu am kumba am ndey ak kumba amul ndey administration bu féete ak parti politique loolu moo indi situation bi ay sénégalais génn ci mbedd mi di bañ dara nit ñi bañ le leen ko ñu noot leen jël ay balu fetal dóor leen ko ñu ñàkk seen bakkan te ba sànq ba tey dara leeru ji sénégalais yi am nañu fulla ba Macky Sall ne defuma troisième mandat ak léegi est-ce que gis nga nit mu génn ci mbedd kenn génnatul ci mbedd donc li metti woon Sénégalais yi moom Macky Sall moo ko doon ruumandaat mais bi mu waxee ne bokkatul ci élection mais Sénégalais yi dañu dellu ci seen liggéey dëkk bi dellu ci dal ga ñu ko xamee woon jàmm ga ñu ko xamee woon parce que nag il faut ñu reconnaître quelque chose ñun Sénégal ci jàmm la ñu xaj njaboot jàmm mooy mbokkam xeex jarta bari mais bu jotee jox ko àqam ba mu mat sëkk boo ca paree nga delluwaat ca la nga doon def et je crois que loolu la sénégalais yi doxalee bu fekkoon ne dal ga jàmm ga ñu doon wut wutle woon nañu ko xëy na li fi am dootul am li mu mujjeel ne dootul bokk ci ay élection yaakaar nga ne bu ko tàmbali woon deux mille vingt deux wala mu tàmbali ko deux mille vingt et ne man dootuma bokk ci ay élection jeex na jeex na mais bu boobaa xëy na lii fi am yépp du fi am et yi nag moo tax ma leen di wo surtout la jeunesse ñu xam ne réew mi jeunes yi ñoo koy defaral seen bopp jeunesse bi ñoo war a tabax Sénégalu ëllëg jeunesse bi ñoo war a waajal génération future yi ñëw ngir ñu mën a am dëkkuwaay ak nekkin bu am solo te loolu ñun ñëpp suñu responsabilité wax na tamit lu jëm ci transport bi xam ne ak TER bi wax na aussi nañ indi juróom-ñaari euh, bus yu bees. Mhm. BRT bi nga xam ne dañ ko relancé le 14 janvier ak 121 bus électriques yi nga xam ne ñoo fi nekk wax na 35 370 euh, bus yoo xamante ne nii yu mu réceptionné euh, concernant Dakar Dem Dikk maanaam ay jéego yoo xamante ni def na ko ci nguuram ci lu jëm ci wàllu modernisation transport est-ce que loolu aussi yow gis nga ni lu lu palpable la. xam nga nee naa la Macky Sall. buy wax du wax ak yow le sénégalais bi réfléchir bi nga xam ne am nga capacité de recul ak d'analyse day dóor dans le tas pour lëndëmal nit ñi et c'est ça le propre des politiciens professionnels mu ngi ñuy wax waxu BRT mu ngi ñuy wax waxu TER mais TER bi pour nga dugg ci ticket bi ñaata la. 500 jëm jëm kaw est-ce que xam nga. kan lañu ñu considéré ne pauvre la au Sénégal mooy ku mënul am mille francs par jour dañ ne kooku pauvre la mu ngi ci rapport FMI bu mujj bi dañ ne boo mënul am mille francs par jour pauvre nga maanaam donc ku mën a am mille francs par jour boo mënee am bu weer bi deewee 32000 francs 33000 francs yow jàpp nañ ne yow doo pauvre d'accord nga ci waaw léegi kii gagné mille francs kooku mën naa dugg ci ci terre mënu ko et terre boobu boo fàttalikoo les partenaires internationaux bi ñu ciy dugal seen xaalis mais waa banque mondiale dañ ne du ñu dugal seen xaalis ci terre parce que amul benn impact positif ci population bi. yombal na dem leen dikk bi. waaw mais ci ñaata nit ñaata nit ñooy jël terre mille personnes ñoo koy jël. aller-retour chaque jour mille personnes ñooy jël TER bi aller-retour xaalis bi ci état di def subvention bi ci état di def ëpp na 3 millions jëm kaw alors que nit ki xiif ki nekk Ranérou 84000 francs la ñu koy jox ndimbal donc lan la ñu ci jublu TER bi dimbali ay entreprise u France ay entreprise u tubaab la ñu ci jublu du leneen du dégg nga léegi nee na deuxième phase bi def nañ ci ñaata milliards alors que tey jii réhabilité woon chemin de fer dakaar jëm euh, Bamako ëpputoon njariñ fexe woon bopp train bi jóge dakaar dem Ziguinchor ëpputoon njariñ ay en parlant de Ziguinchor depuis combien de mois maintenant bato bi demul diggante euh, Sénoba ak tooboor musiba naaru laay la parce que yoon boobu baaxul donc ñi mën dañuy jël avion boo jëlee avion Cap Skirring ngay wàcc dawaat une heure vingt pour di egsi waat Ziguinchor mais à la limite tey booy xool la région de Ziguinchor est asphyxiée pourquoi parce que tout simplement tout est question de calcul politique pour l'an pour l'an la population de Ziguinchor war a subir loolu alors que se des sénégalais à part entière. mais wax nañu dañ fay jàpp ñu yor cocktail molotov ak yooyu moo tax. mais cocktail molotov fépp la ci Sénégal cock cocktail molotov ñëpp ñëpp a yoroon cocktail molotov région yëpp ñëpp dañ doon yore ay cocktail molotov parce que moment boobu jàppoon nañ ne moo doon outil bi ñu mënoon xeexee cocktail molotov du fi du fi du fi guléet xam na Sénégal parfois aussi nit ñi dañuy manquer culture politique. mais yaa ngi fàttaliku PDS ndànd mais loolu y avait des morts PDS attaque gu Ablaye Wade Makakuli Bantan amul woon ay nit ñu de événement wu 16 février yi mais loolu xewul tey ah yàgg na donc remous politique ci réew dafa bokk ci liy doxal réew daf ci bokk nañ ko nangu. maintenant li am solo mooy rëmm yooyu bu amee naka lañ ko war a mun a transcender ba ñun ñu mën a avancé ba li fi daloon wala li ko indi woon wala li ko sooboon wala li nga xam ne moom mooy li ko li ko sabab dootul amati et je crois que c'est ça la grande question bu ñu yeggee ci loolu bu ñu régler problématique yooyu dootuñu yegg ci situation yooyu